li nga wax am na solo mais nga nekk directeur nga yoon ñu nit ñu bari fii nii euh, mu nekk feebar boo xam ne dafa dugg suñu réew mu nekk coronavirus ban matuwaay ngeen jël. waaw mais li nga wax dëgg la marché bi metti na parce que lu tax mu metti mooy chaque jour yaa ngi en contact direct ak nit yi xam nga tey soo nekkee am na structure xam soo ko yoree yow ay parapheur rek ngay gérer mais fii parapheur yi mooy nit yi. chaque jour yaa ngi gis gisanteeg ñoom yaa ngi jokkanteeg ñoom surtout man duma toog sama bureau parce que ay nit soo leen bëggee yore il faut nga nga nga wàcc si ñoom. nga parce que tey man sama directeur bi eh, du ëpp mérite ñu ma ëpp mérite foofu ni ngi fi du ëpp xam-xam ñu ma ëpp xam-xam foofu ni ngi fi yàlla la neex rek mu teg ma fi. mais kañ laa fiy jógee yàlla moo xam est-ce que sax suba naa xëy si waat man xaw ma si dara. xam nga donc il faut nit suñu la dénkee ay nit da nga leen di respecter jox leen seen cër fonk leen man fii ku am dëj damay dem ku am ngénte damay dem ku feebar mu lay seet si soo nekkee sax ba Tamba sama yoon nekku si man au contraire ku gën a néew doole laa gën a sawar demal parce que loolu moo tax ñu fi nit suñu la joxee responsabilité da nga fi war a nekk pour askan bi mais fekkee da nga fi nekk directeur rek ngay ngande ngandelu te yow xamoo sax ndax suba di nga xëy si xam nga donc euh, ñun moo tax voilà moo tax ñun marché bi boobu coronavirus bi ñëwee le président le 15 mu def euh, sortem bi waxtaan ak askan bi euh, le c e, immédiatement lendemain bi suñu ministre de tutelle Alioune Ndoye d'ailleurs ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax dëgg yàlla taxawaayam si marché bi rafet na trop ñëw na fi yàggul sax donc daf ne jël leen disposition yëpp pour xam noo leen di taxawee si feebar. man nag loolu boobu mu amee ma ne coronavirus xàmmeewul ku am ak ku ñàkk ak directeur ak marié xàmmeewul kenn. kon il faut mu nekk combat wu ñëpp. ma woo nag acteurs yi woo kilifa yu nekk si marché yi may leen kaay leen ñu waxtaan. ma woo leen ma ne leen noonu mettre en place benn comité comité boo xam ñoom nooy xool di gëstu di waxtaan ak nit yi. gérer coronavirus bi si marché bi. comité boobu boobu ñu ko metre en plas parce que j'ai compris très tôt que affaire bi warul nekk sama mbir man kese il faut ma impliquer si bi ñu jël benn euh, agent boo xam ne am na responsable sur superviseur général bi mu jiite comité bi mais décision yu bu ñu njëkk jël sur instruction ministre bi mooy nu mettre en place nu génne benn moyen boo xam ne dañ koy jëndee ay produits parce que moment boobu affaire bi tar na il faut nu am ay eau de javel ay gel antiseptique ay ay saabu liquide ay masque ay gants et cetera mais acteurs yi ne loolu kese doyul nunu mettre en place benn caisse de solidarité boo xam ni jour boobu temps yee sax nunu def genre maa jaal man maa yore woon leket bi jour boobu nu def maa jaal bu mag si marché bi nu jël xaalis yooyu yëpp yokkaat dooleel comité bi pour nu yokk ay produits matuwaay yu nu jël également mooy léegi bunt bi entrée véhi entrée xam fi dafa am fu nit yi di duggee ak fu oto yi di duggee entre piéton bi ne léegi képp ku raxasuwul doo fa dugg nu jël ay raxasukaay yu bëri teg ko fa sooy dugg da ngay ñëw raxasu ba sol sa masque daa di rang bàyyante dispace distance doog a dugg ñaareel bi ne léegi nit yi fu ñuy duggee ak fu ñuy génne buñ ko def benn ñu ubbiwaat beneen buntu nga xam ne entrée piéton ak sortie piéton yi bokkatu pour bañ ni ni ni télescopage ñu wax entrée véhicule bon noo nekk si oto ne la wàccal di raxasu donc ñu nekk si oto yi dañ leen defal ay gel antiseptique ñu sol masque ñu désinfecté seen pneu yi ak seen poignée yu ñuy jàppee loxo yi loolu yëpp mu nekk ay mesures yu ñu jël yeneen mesures yu ñu jëlaat également mooy léegi dafa am heure heure heure bu ñu daan tëj dafa gën a yokk man léegi su ma gisee sax marché yi ñuy wax tëj neen marché 4 jours pour defar ko man ree daf may jàpp nu xaar coronavirus pour di raxas marché ñun suñu marché matin soir soo leen wàccee di ngeen gis am na beneen équipe buy monter pour nettoyer heure bi xam nga midi ñëpp dem neen avant marché bi 4 heures la daan tëj après ñu def ko 2 heures mais couvre-feu bi léegi da nga ko def 6 heures midi mais midi suñu wàccee dañuy désinfecter marché bi yëpp de bout en dañ daan désinfecté deux fois par semaine mais ak feebar bi léegi chaque jour dañuy désinfecté moo tax sunu marché ñu soxla wuñ ko tëj pour raxas ko yow kay nit bul xaar ba ne xeeñ nga nga doog a songu chaque jour xëyal songu donc ñun loolu mooy philosophie bu nu am si marché bi donc mesure yooyu également jël nañ ko yéegi neen heure yi léegi midi si jotee ñëpp ay génn ñu désinfecté léegi aussi jaaykatu ndekki jaaykatu añ jaaykatu banaana jaaykatu pomme ñëpp jaaykatu ataaya ñëpp génn nañ leen si marché bi lu tax parce que danoo constaté ni dañuy favoriser dajaloo donc yooyu yëpp daal mu nekk ay mesures yoo xam ne jël nañ ko et puis dinañ gën a góorgóorlu di si gën a takk léegi aussi police bi aussi day tere dajaloo bi ah fu am ay dajaloo dañuy ñëw tas leen et cetera donc daal on a pris des batteries de mesures yoo xam ne moo mun tax actuellement marché bi peut-être tëjaguñ ko mais dinañ gën a yokk di si góorgóorlu et puis. de quoi est fait demain loolu moom yàlla moo ko xam mais ñun daal ñu ngi góor ñu ngi góorgóorlu gis nañ euh, préfet bu Pikine génn wax ne mesure yi nga jël dafa ndaw dafa tuuti lan nga ciy wax waaw parce que préfet ñëw na fi déjà dafa njëkk saluer mesure yu ñu jël léegi daf nu waxoon nu yokk si masque obligatoire ak gant obligatoire léegi mesure yooyu mënu waxoon yokk nañ ko si léegi marché bi moom masque par la force ngay dugg masque yi sax dégg naa ñuy wax ah, directeur moo koy jaayee cinq cent mais loolu mënul nekk man mënuma jaay du ma jaay kotu masque mais nit yi nooy ñëw xam nga Sénégal lu mu dugg ñëpp xam nañ ne marché doo dugg soo amul masque doo dugg nit yëpp dañuy ñëw masque cinq cent cinq cent mais loolu c'est pas bien d'ailleurs depuis démb sax joxe naa instruction léegi jaaykatu masque dootul amat si mbedd léegi kuy jógee sa kër rek sa kër jëndal sa masque wala nga dem si pharmacie bi ah, pour que vraiment nit yi mais préfet mesure yu munu jël renforcer nañ ko parce que mesure yu munu waxoon mooy masque bi nu koy sol obligatoire puis aussi nu tere dajaloo bi donc waxtaan naa ak police bi fii parce que ñoom noonu gën a mun jàppale si loolu ni ngi siy daal di góorgóorlu par rapport ak mesure yooyu munu waxoon baax na waaye na nga ko gën a renforcer. ñu gis ni si yow en parce que man jàpp ne liggéey naa marché man nit yi su ñuy wax marché bi changé na man pour man marché bi changé wu lii mooy vocation marché bu normal marché day set day day day am ay espace am ay fleur ndax askan bi noo fi dugg di jënd ay lay tey nan laa mun méngale marché bi mooy dafa nekkoon benn train bu wàccoon si raay bi man boobu ma ñëwee dama jëlaat train bi tegaat ko si raay bi mais train fu mu daw la léegi nag ñun dañoo bëgg train bi egg destination moo tax on a de très grands projets maa ngi wax euh, gis nga sunu fu ñuy jaayee jën yi si suuf yi table yi dañ koy waaj moderniser parce que àndul ak émergence ay table en bois et cetera on a un projet très ambitieux boo xam ne présenté nañ ko ministre bi dañuy moderniser àll bi ba nga xam ne euh, lépp day dootul amanti ndox buy traîner saa jaaykatu jën yi dañuy toog si condition yu baax. am ay table yu bees ndox ndox mi ndox mu ni jaay si taabul bi ndox mi day aw si biir taabul bi aw si suuf dam donc yow léegi ak sa ak sa coquette yu rafet yi mun nga dugg jënd sa jën dam sa yoon doo am benn jafe-jafe mais taal eh, fu ñuy jaay jën te aussi da nga koy soppi nan danga koy soppee mooy euh, kuy jënd eh, coof dafa lay indiquer ne la coof soo damee ba fee jàdd coof la ñu fa sooy jënd yaboo et cetera dañ koy daal di am ay tableau d'indication mais projet bu gën a ambitieux bu nu am nag mooy suñu espace sociale xam nga marché bi fii mareyeur yi suñu wàccee dafa am ku nekk sa mbaar booy compter mbaaru seen Fallou mbaaru sëñ Babacar ku nekk fu ñuy dajaloo di compter mu tas fii tas fële kii tas fii restaurant yi ku nekk rek daaj sa mbaar jaay añ fii jaay añ fële loolu day dàkk fu parc Lambaye nekkoon ak Gargote nan ko daal di maasale plus de deux hectares cinq cent dañ fay def espace social bu moderne espace social bi restaurant yu moderne lay nekk am ay espace am ay mbaar mooy fu ñuy noppal ko di centre yu moderne am infirmerie ah am vraiment daal dañ koy defar ba mu mucc ayib donc loolu am ay espace vert loolu projet bi pose première pierre bi defoon nañ ko sax ah donc euh, feebar bi sax moo ñu xawoon bloqué tuuti moo tax nu démarrage imminent travaux yi soo leen gisee aussi ñu ngi tabax benn mosquée bu bees tàkk ah mosquée bi moom xam naa si pare goo mën ne dina am mosquée bu ko dàq si si département bi yooyu yëpp mu nekk ay projet majeur yoo xam ne bëgg nañ fi dafa ay centre technique d'aquaculture ah pour euh, jàngal nit yi nan na ni euh, jàngee yar jën et cetera donc yooyu yëpp ay projet la yoo xam ne war nañ gëm ne war na mun nekk te loolu yëpp yàggul dara dina dina tàmbali nu gis beneen xar-xar kanam parce que ñun suñu ambition nekkul rek di rivaliser si sous région bi ay rivaliser ak suñu xaritu Mauritanie Gambie waxuma ay jàmbaar mais danoo war a mën nekk leader si Afrique cest di fu ñuy tudd marché bu gën a mag ci Afrique nu boole si suñu bos ñun si tànk yooyu nun nekk te am nañ yaakaar ni ak ndimbalu autorité yi ak ndimbalu son excellence président de la république ak sunu ministre nu accompagner pour projet majeur yooyu ñu def ko si marché bi. ñu gis ni euh, teg nañ lu bari si table bi. Mhm. pour jàppale nit ñi parce que dañu ne coronavirus bi restez chez vous. Mhm. mais am na ñoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw. Mhm. nan nga yaakaaree que Macky Sall mun na jël matuwaay bu nekk. ku nekk rek mu mun koo jox ba dara parce que ñu bari ñu ngi ne war na jël ay ravitaillement mhm. duggoo ko ci kër gi wala mu fay ndox wala mu fay courant mhm. tu pense que nan la ko mën a fayee ak dëkk bi waaw bon xam loolu moom fu ma àddu si dina jafe ndax ku nekk moom sa waañ yaa xam noo koy nduggee président Macky Sall nu muy nduggee pour togg añam dafa naa moom ko gën a xam mais xam naa ne yéenam weesu na loolu déjà soo leen gisee élan de solidarité bu am ku nekk mi ngi indi participation ñëw jàppale président pour ñu daal di am loo xam ne dinañ ko dimbale askan mhm. man jàpp naa ne ku xam njiitu réew mi xam fam xam bëgg réewam xam bëgg njabootam gëm naa ne jafe-jafe lu mu metti metti dina jàppale njabootam à leen waaye nag ñëpp nañ si jàpp. dëgg la président Macky Sall kese moom mu réew mi njaboot bi du njabootam kese njabootu ñëpp la. Mhm. kon nag bu euh, kenn xeeb dara kum waay lu waay mën. tane moroomam na ko dimbale mm-hmm. lu waaye mën mu jàppale mbokkam na ko dimbale et cetera su ko defee rek élan de solidarité boobu pour diir bu gàtt bi nga xam ne jafe-jafe la gëm naa ne suñ si génnee va euh, suñu réew dina gën a mag parce que dafa am boroom xam-xam ne si jafe-jafe na ñuy xam réew yu mag yi donc nag si jafe-jafe bi noonu war a xam ne Sénégal dëkk bu mag la merci ñu ngi lay jaajëfal dañuy bàyyi nga tàggatoo rek ñu tëj waaw tàggu di leen sant di leen gërëm di gërëm vraiment seen euh, seen euh, Dakar Net gis naa ne équipe jeune ngeen am ah, yow tamit maa ngi lay gërëm da nga xaw bëri titre tuuti rek mais ñu ngi lay sant di la gërëm donc vraiment c'était bien euh, man waxtaan bi yaatu woon na riche na di ñaan rek yàlla nañu yàlla jàppale. amiin di wax askan bi rek jamono bi ñu toll mu am ay jafe-jafe na ñëpp lu ñu tere ñëpp bakku. Mm-hmm. lu ñu digle ñëpp def ko. ndaxte lépp lu ñuy tere rek. pour suñu gëneel la lépp lu ñuy digle pour suñu jàmm la mhm. kon nag suñ ko defee nu bokk ndey bokk baay xam naa yaakaar ne lëndëm bi dinañ si génn fajal jot euh, mu leer nañu Sénégal jëm kanam mhm. merci ñu ngi koy jaajëfoo bu baax vraiment dañ ko woo rek mu yaatal ñu yëpp ne garaawul mun ngeen ñëw amul benn problème mu nekk nit bu baax dañ lay ñaanal rek nga dund ah, nga dund cent ans sans ordonnance mhm. di nuyu nag sama équipe yi tey ñoom laa àndal vraiment ñu nekk ay mag yu baax digg rek lañ may jox mooy lu baax lu gën ci man di leen jox dig daje feneen ak fu ñu koy defee seen émission seet si ma dakarnet.com merci beaucoup et à bientôt.